waa de man dama gisul ci marché bi non sincèrement en toute sincérité. Mhm. gisuma ci marché bi njëg boo xamante ne ni yomb na accessible na à tous mais Nabou. Mhm. bi nga koy def marché tabaski. Mhm. li nga dépensé ci xaalis est-ce que yow xam nga nu mu toll. Hmm. mais tous les prix ont flambé tous les prix amul amul benn prix boo xamante ne euh, flambé wul te pourtant pomme de terre ak soble ñu ngi koy bay fii ci réew mi de. bu baax. xam nga lu tax ñoom mënuñu cee gis seen bopp bu baax. importation bi nii bi ñuy def importation bi yow bu dee sa réew day bay nga permettre keneen kuy bàyyi feneen ñëw dugal ay produits fii yow say produits muy jaare mm-hmm. baykat yi duñ ci gis seen bopp bu baax dañu war a valoriser li nga xamante ne moom la ñuy bay fii pour que ñoom ñu mën cee gis seen bopp ndabu loolu mooy un mm-hmm. nabu de deux dëgg dëgg dëgg ki nga xamante ne dafa yeewu suba teel am jafe-jafe jënd kilo ceeb bu cent 450 francs kooku boo ko bëggee jëndaloo soble ak pombiteer pombiteer bu ñaar téeméer dina la faale nga foog. du ko jënd. ah. da koy suul kilo ceeb 450 et loolu bi la. kii am jafe-jafe jënd ceeb boobee am na temps wu jënd soble. Euh, ak pombiteer bu muy firit wala bu muy tëmbal pour 1000 francs hmm. nañu bàyyi pombiteer bi nañ ko bàyyi. dañ bàyyi soble bi nañ bàyyi sauce bi nañ ko bàyyi amul problème bu kenn soosati wax ji jeex contre expertise bii nag. Mhm. li pa. <laughs> Eh, eh, noo ko wax fii ñi sant Deye ak Jaw laay dimbali. Cheikh ñi sant Deye ak Jaw laay dimbali. wax dëgg yàlla séeréer la doon tooñ. ma ne ñaaw ci man lool nag ma gis. ñi sant Diaw ak Guèye laay waxal. Mm. maa leen di amal seen kàddu ne leen maa la amal seen kàddu yéen ñi sant Diaw ak Guèye. Mm-hmm. dama ne cappa cappa ah cappa kenn du ko. ala cappateen. cappa la cappa. ngeen mënu bu ngeen nu xañee lépp. dugal ñu ci ndox mi ñu la indoon de ngeen ne nag léegi doon ñu cap. <laughs> wuyu la joo kajoor nee na bi ci jël pataas. <laughs> parfois internautes yi dama leen di bëgg eh, dañu ne. dama leen di bëgg danoo wax. naa ci sax eh. naan ay lu ne am na fi. Eh, kenn du mu teree cappa. day tere jaw la ñu sant ak Guèye danoo cappa. Ah. mami démb sama belle bi daa togg ba pare dugg ci waañ bi teg reer bi dem toog ba heure reer muy defar mu jékki-jékki ñëw ne ma waaye sama soble bi kan moo ci def ndox ma ne ko ndoxu taw bee ci dugg. da ngay séddale rek ñëpp lekk. ndoxu taw bi la sonn ah dëkk bi fépp a metti fépp a metti ndoxu taw bi bàyyiwul ci nii bàyyiwul néegi bàyyiwul dara ñëw ci contre expertise u Idrissa Goudiaby bi. Euh, <laughs> ma sonn foo mu metti concentré def émission bu mm, mm, mm, Paasan vraiment Paasan Paasan lan ko bax mais cher na de kilo sept cent imaginez kër gu war a togg 4 kilos wala 3 kilo soble loolu mënul nekk. mënul nekk te jafe na looy togg fii te doo ci def soble. nu laurier ka nanu ko laurier. looy laurier soo su mën naa ne nanu ko laurier ut yeneen pexe. waaye Paa sànni ko lii. soo su laurier moom fan la am merci rek. Eh, hmm. baax yow la ñuy laurier. <laughs> boole ko kii yé mën a ne. léegi nanu ko def yow mën a de. yow boo boo amul soble càpp moom kenn duñu ko tere. waaw de dama ne yow boo amul soble yow di nga am loo lóoree. xanaa kay soos bi ngay lóoree. soos bi kay lóoree moo ci mujj. ah man kay damaa jaaxle soos lóoree moom fan. li jënti leen ko daal càpp moom dana am. <laughs> waaye ma bu mënatul doon ak soble càpp moom soble lañ ci doon xalaat wax dëgg. trouver autre chose ngeen xam. lijjanti leen waaw pourtant am na yeneen soos. gay nag wax dëgg yàlla am na yeneen soos yoo xamante ne du nekk soble. ñun gayee nag jaw jawel daanu càppate